Yeah. Hallelujah. I'm والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه غير الدوال والتركيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ndokkeel ñëpp ci bis bu tedd bu sell bi nga xamante ne moom lañu jugee tabaarakallaahu muy tabaski ñu ngi leen ci ndokkeel te nit mënta maye lu amul muy cër te kii di sama kilifa tabaarakallah di Seydi Hadj Malick cër bii mu joxe daf ko am moo tax mu mën koo joxe waaye ñun muy bërki démb di démb di tey yépp taalib lañ da di ndigal lu bawoo ca moom te ñëw ci man moo tax bu dee ñaari baat sax danaa ko wax incha allahu taala ñaari baat yi nag gannaaw bañ nuyoo kilifa xadara bi di cheikh seydil mouhamadul habib di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi te ànd ak wér noonu lañ koy ñaanali suñu sëriñ suñu baay sëriñ Pape Thierno Kandji Baye ndax dafa guddi bëgguñoo guddal te ñi fi war a jaar ci ay kàddu dafa bari te bis bi day soog a tàmbali تلو نيب بوك ان شاء الله مو مل نك كادو يلن كيب لا موي فيسل مبكتي سيدي حاجي مالك تي ناوليم ييغا خامتاني وونا الله suñu as bu ma yóbbantuutoon ay kàddu ngërëm ku ne xam ne ne bég na kon nag loolu du jar ñuy guddal waaye di nuyu ki fi teewal xalifa bi di sëriñ xab sëriñ Habib mu ngi suñu bàyyi alxaaji Cheikh mu ngi suñu gannaaw ànd ak suñu bàyyi sëriñ Babacar Kanji ànd ak suñu mag sëriñ Alaaji Kanji ak mbooleem ku teew rek nekk ci ronam waaye di nuyu monsieur le maire Malick Fall mu yóbbaale mbooleem koo xamante ne kilifa aada la te nekk ci jotaay tabaarakallaahu mu nii rek la ndax juróom-benn xàq yént yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne jullit bu nekk dana ko topp moroomam lu mel nii ca la bokk bokk na ci bu nit amee yokkute nga ndokkeel ko bokk na ci bu nit amee xew-xew mu mel nii wax la ko nga dem fekk ko ndokkeel ko ca bis ba bokk na ci bu amee naqar nga taxaw ko defal ko fa tabaarakallaahu lii ngeen def nag ñun ñu sant kan yi ñépp bëgg nañ ci ñun ngeen ko defal di gën ñaax ñi nga xamante ne ñoo nekk ci quartier Maam Cerno Kan muy murit muy tiijaan waaye rawatina taaliba Cheikh Seydi Ahmed Tidiane lu ñu gën fonk kër gi nañu ko yokk dafa am ci sama kilifa yi ci sama mag bi ku doon waxtaan ak benn kilifa goo xamante ne bokkuñu tariixa mu ne ko seen quartier bi bokk na ci li leen jàpp mooy kër cernukaan yi dañoo lewet lool ñu leen di foyee bokk na ci li leen jàpp te nag ku ne xam na ne wëliyu téeméeri bët la ko yàlla dénk buy dund quatre-vingt-dix-neuf bët yëpp moo ngi koy xool ca barzaq benn bët bi mu koy xool ci àddina waaye bu yàlla jëlee ruux gi ba mu dem barzaq téeméeri bët yëpp da koy wëlbati jox ko njaboot bi suñu maam Cerno Kaañ radiyallahu anhu di wëlli boo xamante ne képp kuy wëlli ci réew mi ñuy wa naw sag wilaaya nangul nga ko ak wilaaya mu nekk mag moo xamante ne ca mag ña la ndax ku gënee àddina 1840 doo gone di Xaaji Malick nawloo ko tafsir Alaaji Ahmad Baro nawloo ko suñu maam Cheikh Ahmad Bamba nawloo ko may wax ne bu jamonoy loolu jotee ba sedd mi sonal nit ñi kenn ku nekk daay ba la jege moo la mën a jaar te ñun Thierno Kandji mooy suñu sens kon damay gën a ñaax sama bopp di gën a ñaax ndaw ñi sant Kandji waaye di gën a ñaax ñi dëkkee ci quartier bi surtout maam surtout ma quartier Thierno nañu fonk kër gi gën a jox kër gi xarma sama message du sori ndax maam na ñëpp reconnaître nañ ne dayratu fadilatu maam Thierno dugg na ci bu ñu meree yàlla mer bu kontaanee yàlla kontaan kon ki ko fi wuutu jëmmi maam Thierno Kandji radiyallahu taala anhu la yor ndax inna rasula bi xadril mursal ixtatimi yoon yi yëpp bu ñu gis ku sant kàññi mu maase ak nit wala mu tolloo ak nit jamono ñu roof ndax olof Njaay dafay lépp na lu waay gàtt dégg-dégg xam ne doo bi jaan jaan te maam Thierno amul lu njabootam lii Cheikh Seydi Mouhamadul Habib moo fi nekk. nekk fekk rakkam ak doomam di sëtam kon li sama bàyyi si moom wax ci suba moom rek laay firndeel waa quartier bi man de ñaan tax lu ñu gën a mën a ko def ndax lu ëpp weer a ngi bis bu yàlla sàkk fii ci mbedd mi dañ fi tàllal musique te kenn ñi tàllal musique kenn ku nekk boo ko tànnoon topp ko ba ca biir njabootu maam Cerno ca ba ca xalifa maam ten tëdd fii ñu teg musique bi muy jolli ba une heure du matin dañu war a nekk seen groupe te xam ne tous dal la nañu gën a xormaal kër gi nañu gën a wekk kër dégg Pape Serigne Mamadou mu ne ku sant Gagne na fonk maam Thierno bu ko fonkul ba mu daan nga ngay ànd ko xëy na dafa baax sax ne du daanu waaye Thierno Gagne du daanu ndax góor gu liggéeyal yàlla la ba Seydi Hadji Malick reconnaître ko ne ko fa dairatul ihatati man hawaaha alayhi sabru sabiru kal kiraami dafa guddi moo wallaay dafa guddi dafa guddi te damay damay tëng dafa guddi nañu gën a wekk kër man loolu mooy sama message nañu gën a fonk kër gi ndaw ñi ci quartier bi gën a fonk kër gi ku ko ci fonkul barke Cheikh Sidi Ahmed Tidiane di nga ko gis ndax maam Thierno yàllaa ko naaj bi na ndaw ñi gën a fonk kër gi na ndaw ñi gën a fonk kër gi man message boobu laa am ci lu may lancé ci turu Seydi nag sant na gërëm na mbooleem boo xamante ne bàyyi na ay yittim bàyyi njabootam bàyyi këram ñëw tew ñu ngi mu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ci turu mu Seydi Mouhamadul Habib ñi xalifa bi ci turu baayam Serigne Pape Thierno Kandji Baye Daara ci turu suñu baay Alxaaji Cheikh mi toog ci turu suñu baay Serigne Mamadou Kandji mee ci kër ak mbooleem bu sant Kandji yàlla yàlla fay leen mbooleem bu doxee këram ba fii tànk boo yëkkati andi ko fi yàlla nay tànk yiw mbooleem soxla boo andi muy xaaja boo mën a wax ak boo mën ko wax yàlla yàlla faj ko bi jaabi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xam naa nag foofu la ñuy daane suñu kàddu ndax mënuñoo wax lu ëpp lii te programme bi li ñu ci jox mooy wax ci turu Sëñ As sant nit ñi gërëm leen ci xëy na lii ma wax maa jël sama responsabilité bopp wax ko ngir ñu dégg ko ku ko ci jëfee xayru ku ko jëfewul xayru waxuñ ko ngir jam kenn ولم يخانكم وادن جوابهم يبني على جنوجي وما ذلك على الله بعزيز والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته